jaajëfal leen euh, yéen ñi ñi safoo di ñu topp ci 24actu point ñoo ngi fii nag euh, bu ñu la ko waxee ngeen gis na tey ji ñoo ngi waajal fête gu am solo muy Saint-Valentin euh, mu nekk nag fête gi nga xam si ne ñi bëggante ñoo koy feete tey ji nag ñu gis na tamit ñoo ngi ci mbas mi tey ji par rapport bu ngeen bëggee xam ba xam naka la ko nit ñi doon waajal ci diggante daaw ak ren ndax clients yi ñoo ngi dugg si bu baax a baax wala tey ji tamit naka lañ koy daal di fas yéene dundee tamit ñoom ñoom ci clients yi ci boppam loolee répp dinañ ci ànd ak leen ci 24actu point com ayca topp leen ñu. bàcce Massamba lañ koy wax. jigéen ñi ndànk ndank nag par rapport ak daaw ak daaw jéeg waaw waaye fan yi moom feebar bee tax programme yi bëri wàññeeku waaw liggéey bi moom yemuñu ko sax ci Saint-Valentin ndax xew la ko te maanaam rassemblement yi lañu aaye ak xew yi loolu moo tax waaw ñun moom suñ liggéey bu fekkee ne maanaam mi ngi aju si xew amul rek suñu liggéey da daal taxaw ko waaw waaye daana gën a daana gën am client yu période bi quoi sant yi nag waaw moom mën naa ne sax ndax Saint-Valentin ñu bëri moom jëkkër ak jabar la wala copain ak copine waaye sant yi xaalis mu amul moo tax dëkk bi moo toll foofu sant yi xaalis amul rek ñi nga xam ne maanaam mooy loolu. feebar bi waaw yu bëree bëree bëree bëri waaw laal na liggéey baax baax a baax a baax a baax ñun ongle yi ñu ngi jaf permanent ñu ngi def euh, simple bi ñu ngi def régime ñu ngi def yooyu yëpp dañ koy pause quoi. instant yi permanent bi moom moo gën a xew permanent bi quoi mooy comme gel bi di jógee léegi bi pose bu rouge bi boobu mooy permanent bi quoi liggéey bagage yi bagage yi moom instant yi sax bagage yi bëri la daan jógee instant yi bee tax non dara changé wut dara changé wut quoi xanaa modifié quoi création yooyu moo changé rek waaye même bagage yi même xef yi même ongle yi instant sama gars yi ñoo nekk nii ñoo nekk nii ku ne ñu gars yëpp ñëpp ñëpp ñëpp man moom benn la rek ñëpp ñoo yem ñii la waaw. fii moom ku nekk say client rek waaw ku ne ak maam ña nga jublu ku jafara rek waaw. Amina Ndiaye dama am xew waaw dama am mariage dañ may tax. waaw ma ñëwoon doon def ongul ak sil ak tatouage rafet na torop incha allah seer na tamit aussi. non non maa ngi fi soog waaw maa fi soog waaw dañ ma boole ak moom dañ ma boole ak moom waaw. waaw ñoom fu fii la ñuy ñëw fii la ñuy ñëw mu leen defaral. fii rek am nañ dina rafet trop daal dinañu am envie aussi tamit ñu seen seen nañ yëg suñu bopp. xanaa ñu ñëw fii rek ndax am na ñoo xamante si nii tamit bu ñu la congelé tamit aussi day jam wala dara veille tamit di jam buñ la ko defaree muy jam waaye man bi ma fi maa fii soog a ñëw nag. mais biñ ma ko defalee sànq ba léegi jàmmul moo ko tugg yàlla deful dara moo non dara jeune seet bi ñu ngi koy waajal de ñu ngi koy waajal wu waaw dañ may takk suba incha allah waaw maa ngi koy waaj bu baax man pëti la may wax non affaire man ni ma ko dundee li suñu liggéey la quoi ñun basé si benn événement parce que dañ koy def ak plaisir li ñuy def moom bon ku fi yàgg ñëw tamit li lay defal ne beneen yoon tamit boo fi ñëwaatee tamit loolu lañ lay defal quoi nekk liggéey bi nga xam ne liggéey événement la mais n'empêchement que ak feebar bi ne daan na fekk fii mi ngi gën a jax quoi. daan na gën a dox ko léegi nii quoi xam nga ku nekk tamit xam na ni euh, fièvre bi bëri na lu mu yàq si liggéey bi quoi. Mhm. waaw au fait mais liggéey lu baax rek ah lu baax jom mooy fay jom mooy fay parce que ñun li lu baax moom rek lan xam boo fi dikkee accueil bi dina nice liggéey bi tamit dina jaaw yoon parce que loolu xam. Mhm, ñun loolu lañ bon loolu moom njaatige bi yaakaar naa moom moo ci gën a mën a xóotal quoi en tout cas yàgg nañ fi ñu bari daal xam na ñu bon si bërëb bi ñu nekk nii. Mhm. ndax clients yi ñu ngi ñuy am déet ah bien sûr. fii ku dugg boo génnee boo demee tamit di nga indi sa yeneen morom ku la gis rek waaye dina laaj fi nga defaroo parce que lu baax lañ xam mooy na ma la ko waxee si début wax bi waaw fii ku fi dugg boo génnee ñu waxtaanee la daal voilà loolu lañ xam daal. non non ñun dañu yemale ñëpp dañu tëddee njaaxaanaay boo dikkee bon boo toogee rek dañuy farce lu ñu njëkkee mooy farce ak yow bon dina sa stress bon yaatal quoi parce que lool loolu moo ñu fi bàyyi client bi moom buur lay doon quoi ba ni mu demee ñu bi këram tamit buur lay doon quoi ñun loolu lañ xamuñu kii neex nañu bon xamuñu xamante bu yàgg la fii ñëpp fi yem ah, fii ku ñëw rek bon ñun ñëpp ñoo fi yam daal. waaw bon di santaat yàlla rek bu baax a baax. di santaat yàlla bu baax a baax di sant suñu njaatige quoi parce que lu ñu mën tey à part yàlla ñoo ngi ko ciy sant bu baax a baax moo ko waral xëy na suñu temps xaw fee yàgg noonu biñ fi ñëwee noonu mais tàggat nañu wan ñu loo xam ne que mooy flag fayda ak jom ba saa soo fi ñëwee saa booy dem sab xol sedd sooy ñëwaat nga daal di indiwaat ñeneen liggéey bi nag ñu bëri mën nañ ko ñàkkal fayda jàpp ne que nekkulu liggéeyu góor wala dara mais dama jàpp que ne doomu aadama ak ci lu mën di nekk da ca war a mën a am fulaak fayda bañ ko wax ji yàpp liggéey bi euh, bu noble la waaw ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax a baax waaw dafa am ñoo xam ne que mën nañ lépp am na ñoo xam ne tamit euh, ñoo ngi soog a door mënaguñ lépp mooy loolu mais fii gars yi daal ay champion lañ ñoom ñëpp ku ci nekk moom champion nga ci li ngay job waaw. waaw liggéey bi dafa laaj ci tuuti concentration. parce que comme lu mel ne ay make-up tatouage xef concentration la laaj nit ki euh, soo koy liggéeyal xolam war na mën a sedd am na ñoo xam ne tey ay xef saa bu ñu la ko posé lee xeef yi daf lay déranger muy jam côté bi yooyu noonu su fekkee ne amul ay concentration doo ko mën tatouage tamit euh, dafa laaj concentration loxo bi set ainsi que ci make-up bi tamit waaw moo tax faaw gaay sëgg di concentré wu Ah, ban comme liñ li ñu wax rek euh, ci mesures barrières yi ñu respecté ko ñun ñëpp mooy loolu bon sama masque léegi laa ko tekki nii parce que man damay fat des fois moo tax mais souvent lu ci bëri dama koy tàkk Saint-Valentin bi tamit euh, ñuy wax que ñi nga xam ne pare nañ ci pour ñu koy dund tamit ñu koy feete ci comme niñ ko daan feetee ñu respecté waalo tamit comme li ñu wax bañ a nekk ñu koy feete ay feet yoo xam ne que day am ay rassemblement yeeg yooyu noonu quoi mooy waaw ñoo ngi sant client yaa ngi ñëw comme niñ daan ñëwee mën naa naka sax ren la gën a yokk ay daaw ak ay daawati jékk parce que liggéey bi nekkul ci ay feebar bee koy kiiw yooyu noonu xew yi nit ñaa ngi xew. waaw nit ñaa ngi xew comme niñ daan xewee. Ah, koy seet bu yam rek yaa ma gën a xam. Ah, gis nga ah xam nga rek mooy loolu daal jigéen daa amul lu boppam waaw loolu la rek. monsieur waaw. waaw def simple. dama koy fête ak moom sama biir kër. ah sa Ibrahima bi ñu ngi koy wàññi rek ah bisu moom mooy moom kenn benn ci année yi daal muy 14 février mooy loolu ñu ngi koy waaj baax damay ànd ak moom ñu maa ngi joxe ay ay chemise ay montre lu baax rek. waaw maa ngi koy pare make up pose lépp du bis bi laaj koy def du yomb de <laughs> ok merci. Basirou Sow. waaw incha allah ñu ngi koy waaj bu baax a baax le 10 bi sax incha allah dama cee war a jël soxna si waa xam naa ko bu baax mooy feetu mbëggeel waa mooy feetu mbëggeel waaw waaw depuis 84 la yàgg naa ko feete trop. waaw ah, sama soxna la kaat waaw yàgg nañ koo gis feete moom ki ma doon laban maanaam ku ma doon bëggante yàgg nañ koo feete cadeau parfum montre maanaam yu baax daal loo xam ne dana ko utiliser rek lu bëgg-bëggam laa ko daan jox incha allah ren nag bëgg naa ko jox portable bu seer daal hmm. waaw portable bu seer laa ko bëgg jox cadeau non loolu moom moom moom du yoon moom maanaam Saint-Valentin dañ ko war a teg ci yoon maanaam boo gisee ko bëgg bëggatee nga bëgg ko mu bëgg la danga ko war bëgg daal respecté ko loolu mooy yoon mooy droit voilà. tur bi ñu ngi koy wax Alla Sakho. Saint-Valentin yàlla def na ne am na lu ñu si xam de ndax yàlla def ñu takki soxna te avant ñu leen di takkit dañ leen a dox ngoro leen bëgg leen ñoomit ñu bëgguñu maanaam at mi nag saa yoo sa euh, bis bi ñëwee. war nga leen teeru teral leen bañ kontaan daal waaye nag Saint-Valentin moom li ko tax a jug dëgg-dëgg mel ne na ñun saa yuñ ñu xëyee ñu ngi si ndax mbëggeel la rek te mbëggeel googu saa yuñ xëyee ñu ngi bëgg suñuy soxna kado bi moom chaque année dama koy def li si jiitu mooy dinaa leen berndeel bañ xam ne berndeel naa leen ci bis bi li si des bu ma surprise lay doon dinaa ko jënd ñaari soxna la ma yàlla dénk kenn ku ne la sa naa la ko jox ay ci baax ne comme ni ma leen ko waxee woon nag ànd nañu woon ak yéen seet si nag Bathie Makeup moom mi nga xam si ne tamit dañ koy daal di gis muy def ay ongle euh, di pose euh, tey ji li nga xam si ne moo di ay euh, tamit makeup di def li nga xam si ne moo di jigéen ñi lépp loo xam si ne jigéen ñi dañ koy yittewoo tey bu ngeen dikkee ci place Bathie Makeup da koy daal di def ñu àndoon nag moom fii nag dégg ngeen tamit ni ñu ko daal di waxee ñoom amut tey ji Saint Valentin bi amut tamit xew ndax gis nañu tamit nit ñi saa su ne jigéen ñi ñoo ngi soxla di defar seen bopp ngir lépp loo xam si ne dafay nagisel jigéen jigéen ñi ñoo ngi ci ba tax na tamit Saint-Valentin bi nga xam se ne ñoo ngi a ñu tamit fas yéene ànd ak ñoom tamit eh, di feete ko ci biir kër yi ñoo ngi si a ne yéen yoon safoo dañuy topp ci 24actu.com nii rek la fay daal di demee bépp programme boo xam se ne tamit dafay daal di soxal askan muy actualité dinañ ci ànd ak yéen ba tax na tamit ñu daal leen defaloon reportage bu am solo jëmale ko ci Saint-Valentin bi nga xam se ne moom la nit ñi di waajal ñu leen di sant bu baax di leen gërëm di leen jox dox ci beneen